kër waaju baax kër waaju baax gisuma feneen fu ko dàq kër waaju baax amul leneen lu ko dàq kër waaju baax kër waaju baax gisuma feneen fu ko lu ko dàq wax deug yàlla surprise bi mom neex na trop kontaan nañ ci yow trop sax wax dëgg yàlla. ak kër gu mag niñ fa sonné won ñu méttee. Ah, dëgg yàlla kontaan nañ ci yow. Kumba. Mm. alhamdulilah rabbil alamin. Kumba kër gu mag la métti woon na trop. mais sante yalla muñ nga fa lu nekk nak da nga fi lu nekk. te lepp tek naa ci sama bët bi du deug lenn nak la leen bëgg la leen di ñaan. ngeen gor gor lu ci. mooy teraanga ji nga xamante ni yàlla dénk na ma ko tey tëb ma tëb rek am ko yàlla daf ko jàll ci yeneen i loxo ba mu egsi ci kon ma bëggoon képp koo xamante ni sa wërsëg a ngi ci su ñëwee ci kër gi na na ko jot nañuy partager ñam yi ñuy këpp aussi nañ ko bàyyi du dëgg ma bëggoon gën a góorgóorlu gën a jàppalante ndax kat jamono neexul. xam nga ci dara dem metti woon kon tey bu ñu yàlla yóbbu ba ñu egsi fii nañ gën a góorgóorlu gën a jàppalante képp koo xamante dox na ba ñëw ci kër gi même bu fekkee maa ngi neloo nañ ma yee waa boy yow bi di nga de yow saay fon fon woon boy sama soirée dem bi waaw kon yow mujj nga dem Mami fisla mama dem suara ba. Suara do am ci kon ji may toog. la yow kan moo dagal yow. rek ma yow ay kan moo dagal ticket maa dagg franc. ba pare xoolal xale yi topp ma. fés. waaw. kër waaju baax kër ko amul leneen bu ko merci jaajëf ok waaw. waaw yow nga ni cinquante mille franc nga dagg ticket booy. booy loolu taxul neexul soirée ba bari nay xale fees na buuxante bi wës wës wës booy xool ma def yoo xam nga ma. xam naa ni jaay yoo xooloo wër ma may tànn fii xoolal ku ma neex lay choisir gis naa fa sa booy bi sa kepp ba. sama booy man mais kenn koy jël nag. keneen koy kep Boy bër xol jantal de yow do yow yow togal fi salaamaaleykum alaykum sama se sala naa de alhamdulillah lo soxla won ma de kilifa gi la soxla won kan si nono ma jaay jaay waaw jaay ko fi ko hmm. yow mo mbaa dara dara la kay dama feebar ya, aw ma ku dimbali ma dégg ñu ne day dimbali waate moo tax ma ñëw fii dama demoon hôpital ñu bindal ma bi seer pour opérer sama loxo bi. Massa Massa Massa waaye Madiagne dama doon ko fee fekk Madiagne daa voyage tout mois bu le passé nekku fi boo ko fekkoon kay sa aajo faj. nii nga may gisee ñàkk moon dara sama jëkkër ku amoon kàttan la. waaye dafa dem bàyyi ma ak njaboot ji sew sa suma ci kenn ñëpp bàyyi ma lii may def ni sa mënuma ko waaye ñàkk pexe rek massa bul jooy massa àdduna moo tëddee noonu massa bul jooy bu laay ma jaan daa voyage boo ko fekkoon rek sa aada faju waaye danga ko fee fekkul yàlla foofu su bu dee ñaar téeméer may ma. yàlla xam ko fi ñaar may ñëw sa carte ma ko lijjanti. fekkoo ko fi ba ko fekkoon nag ma jox la moo jaañ ba léegi yónnee guñu dara bul jooy Massa Massa bul jooy. di ko dem taxut a dem ana lay tax dem. tarna tarna tarna tarna tarna bëgg. mëna ñaan bay bëgg a fo leen fekk ñaan ñaan ñaan rek ah kër kër rafet dal la ñuy bañ gis ah fo leen fekk ñuy ñaan bu demee dara jotu ko waaye li bu ma jaan sax yalla lay mbeur ndax ku jóg ne ma jaay li mbaa jàmm la. ak dëkk bi fi mu toll ni nga yëg 50000 ni ko dëgg ci ay soirée yi. comment. lebal ben kaas café. ma lebal la lan. ben kaas café. may reetaan quoi. xam limay wax léegi ni <laughs> ah yow yaa ngi dem dagg cinquante mille franc ticket ñëw di ma laaj ay kaasu café cinquante franc booy cinquante franc. booy bu ñu ah? nee ma fay la dama lay fay ba wis la. waaw ah, segg suba yow. yow mel ne ku may. tuur café gi nii li mën koo tuufoo. lan ngay tuufoo tuuf ko tuufoo ko. wax mais Fall li may xelal bàyyi. dama la ko may jëlal. yow. non man barki man booy man man maa comprendre lul man booy booy cubu imaginez yow tey ah cinquante millions yi boo ko jëloon dem jënd ci saaku ceeb wala nga jënd sax ñaari saaku ceeb ñëw fekk sa yaay toog sa papa toog ngay get cinquante ñaari saaku ceeb yi jox ko boo yow xanaa xamu ni am na ñoo xam te sax xolal ñoo la ëppale téeméeri junni yoon te mën nañ ko waaye xolal duñ ko def booy nañu xoolaat suñu bopp ñun ay xale lañ dañoo war a defar suñu avenir paal yii ngay dund nii booy man boo xoolee ci man rek booy yeewu booy man rek doy na leçon doy naa la leçon booy ah. yow waaye naanal. na góor góorgóorlu bu baax sa jàng bi ndax avenir bi ci yéen xale yi la nekk da may dégg avenir bi ci yéen la nekk loo mën a góor góorgóorlu ndax man yow yaay sama xarit sama yaay laa la tuddee du rek gën a la góorgóorlu. <laughs> waa Ndiaye. waaw Gouma dama laa niroog ku am doom nii. ah déedéet. Eh, kii fëgg de. xam nga lu muy laaj fan la ngénte di am. waaw. <laughs> ma ne ko ngénte man de xaw ma kañ laa caatlu woon. caatlu.

kër waaju baax amul leneen lu ko dàq